aywa euh, mu ngi noonu ñu ngi Thiolome Fall euh, festival Thiolome Fall bi nga xamante ne mooy dixième édition bi euh, ñu ngi nekk ci préparation yi soxna yaa ngi xëy nekk ci li nga xam ne moom mooy ndékki Iya, eh. iya, di pare eh, eh, ñi nga xamanteni ñom ñoy ñooy gan yi fas na leen dalal yéen a ngi gis ki nga xamne moy directeur festival bi mo nekk na la di Babacar Diakhoumpa taxaw ak gaay di waxtaan ak ñom ci li nga xamne moy mooy bi ngeen di seen nonu Baye Zal ak ki nga xamanteni mom moy Khadim job ñi ku leen gis xamne ku yàgg ak Cheikh Fall lañu depuis dembu yàgg na lol lu yàgg rek deug la maanaam chaque at xaadim euh, nekk ci li nga xamante ne ne moom mooy euh, restauration ñoo gérer lépp lu jëm ci li nga xamante ni mooy waañ bi ci lekk gi ak euh, naan gi kooku ngeen di seen mooy ki nga xam ne mooy Tafa jóg nekk koo xamante ni nit ku yàgg ak ñun la yàgg ak ki nga xam ne mooy Babacar ko nekk bawal bawal cent pour cent nekk nit koo xamante ni nit ku yaatu la nekk koo xam ne nit ku baax la yàgg taxaw waa Calom Fall ci tous les plans macha allah fii nag euh, soo fi ñëwee sa xel euh, dafay sori si fii nii laa ko fekk fekk li nga xam ne mooy premier édition ma àndoon ak compagnie Gëm Sa Bopp ñoom Sali Sambu ñoom euh, Assane Thiam ñoom Mami Fall ñoom Kole macha allah fii la woon. fii la woon eh, di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nekkoon nit koo xamante ni nit ku baax la nekkoon koo xamante ni nit ku yaatu la nekkoon koo xamante ni ne ku woyof macha allahu rabbi eh, Cheikh Fall ñëpp xam nañ si disponible am ci koo xam artiste nga wala ngay technicien nekk ci audiovisuel macha allah nekkoon koo xamante ni ne fuñ mësaan a mu ne ma kaay jël caméra bi ma ne ko non yow yaay suma pro mu ngi noonu nekkoon ko woyof nag ko mënoon partage moom Cheikh Fall macha allah mu ngi noonu nii la xëyee ci li nga xam ne mooy suba gi premier jour bi nekk li nga xamante ni moo nekk la le 27 euh, nekk si wàccaay bu ngoonee ngeen gis ay spectacle yoo xam ne ay spectacle yu nice la gis ay spectacle yoo xamante ne ay spectacle yu la mu bon incha allah li nga xam ne ñooy euh, waa doomu colom ak doomu bawal sélection ñu war def loo xamante ni lu am solo la ngoon incha allahu rabi di leen jox rendez-vous bu ngoon incha allahu rabi di wax waa Calom Fall yëpp nañu génn comme ni waa Ndakaaru ñëpp ñëwee waa Calom ñu ñëwee noonu di remercier tamit monsieur le bu baax a baax a baax euh, di ko dooleel képp koo xam ne def na si sa dërëm rek ci wàllu lu jëm si social ak yeneen yàlla ko yàlla ful ci barke Seydina Muhammad ci ñu noonu nga nekk si li nga xam ne mooy wàccaay bi bu baax a baax a baax a baax waaw doomu colom euh, dixième édition li nga xam ne moom mooy festivalu colom Fall macha allah aso ñu noonu aso moo nekk noonu ngeen di seen moom tamit nekk jigéen bu jàmbaare wax dëgg yàlla jigéen bu jàmbaare macha allah ñu ngi noonu kooku ngeen di seen euh, mu ngi noonu kooku mooy Seexu Babacar Ndiaye. comme ni Sali sam nekké sama cheikh bu jigéen kooku moy sama cheikh bu gor di Babacar Diakhoumpa eh, nek nit ko xamanteni ne nit ku yag ak man la nek ko xamanteni ne nit ku yaatu la sha allah seri nday mbay moo nonu. noonu kooku moy eh, papa yi Fama daal di jël Fama moomu ngeen di seen mom la Babacar Diakhoumpa tuddé domam kon day lan firné na théâtre manam lepp lo xamanteni day jëm ci walu théâtre rek manam luy defar la wa nekkul lo xamanteni luy yak la gis ngeen fama mom ngeen di seen mom la jo xam ko tudde tawam te pourtant am na ño xamanteni ñom la bokal ben dret li day firne na théâtre mom day defar rek waye du du du mës yak yàq eh, jangeen di gis nonu sank wan naa leen ki nga xamne moy mooy Silla dom bol ñet xaadim mo fa nekkon ki moy xaadim Diop kooku moy xaadim Dia xaadim Silla mom laa won legi ñu ngi nonu kon di leen jox rendez-vous rek kanam allah rabbi ko ngeen di seen muy ñëw noonu mooy Mbaye Ndiaye nekk fi nga xam ne mooy bëgg sa di def ay spectacle ma sha allah mom tamit jambar jàmbaar lool sax ànd ak compagnie bi nga xamante ni mooy bëgg sa réew ñu fas def fi tamit ay spectacle yi nice di wax ne ci kanam tuuti rek ma jox len artiste yi nga ne nañu ngeen len di seen ci wolen def ci